mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag ñuy waxtaane wàllu politique wante dem euh, démb euh, ngir fàttaliku li xewoon particulièrement atum 1963 le 1er décembre élection présidentielle ak législative la ñu boole woon amal ko ci réew mi di Sénégal président Senghor euh, nekkoon ci candidat waaye lii xëy na tax boobu la élection wuteeg yeeg yeneen yi mooy euh, waroon nañu am parrainage fukki député waroon nañu jàppale candidat pour mu mun a bokk euh, la xewoon nag mooy benn député buggul woon euh, parrainer opposition bi loolu waraloon benn opposant bokkul woon ci élection boobu ñoom ñëpp ñu éliminer leen président Senghor Kot moo dem ci yooyu la élection naturellement mu gagné ko la ca topp nag mooy ay manifestation yu métti métti officiellement ñu ne ñeent fukki bakkan rot na ci yeneen xibaar wax ne juróom artu ci bëccëgu keroog bi ci allée de cent euh, allée du centenaire fii nii ci ndakaaru muy kon ay xew-xew yu tiis euh, yu ñuy fàttalikuwaat euh, di am mbégte nag dalal ci professeur Mansour Aw jàngalekat la woon mais tam historien la professeur ñu ngi lay nuyu di am mbégte dalal la ci démb ak tey encore une fois. jërëjëf Fatou Thiam Ngom maa ngi lay fay di nuyu seen. auditrices yi. Hmm. di nuyu itam seen auditeurs yi. Hmm. Euh, Rewmi FM man dafa nekk euh, rajo boo xam ne bii kóllëre dafa dox suñu diggante. Hmm. ñoom depuis ñuy commencé ba léegi ñu amoon suñu collaboration. waaw da ne professeur waaye historien la woon. ah historien la ba léegi. nag sax waaw jàngalekat woon laa wax. jàngalekat nga woon historien nga ba tey voilà. jàngalekat laa itam ba léegi. ah d'accord kon nag dindi naa woon gi jàngalekat ak historien. parce que jàngalekat nañu c'est vrai jàngalekat moom du ko noppee doon effectivement. du ko noppee doon voilà jërëjëf. dëgg la loolu loolu am na solo. kontaan naa lool ci invitation bi. kontaan ci di jokkoo ak eh, yow ak eh, auditeurs yeeg yooyu. Mm-hmm. waa di revenir ci mbir yi mm-hmm. ci yi nga xam ne jàng nañ ko jàngale nañ ko. Mm-hmm. ak yi nga xam ne vivre nañ ko. démb tax ñu naan tey lu am solo la ndax ñaare lu ñu dundu démb tey danay faral di feeñ léegi nag la xewoon démb naka la ñu ko dundee woon xëy na yan yoon la ñu jaaroon ngir euh, dépasser ko euh, bu nu ci sukkandikoo mën na amaana yenn mbir yi duñu ci daanu te lii ñuy waxtaanee euh, gis nañu ko fii lu ni mel 2019 ñu bari jàpp ne ay candidats yu baree bari dañu leen a ci parrainage bi loo xam ni jàpp nañu ne pour ñenn ñi awul ci yoon kon bu ñu delloo démb gis ne atum atum 1963 lu mel noonu amoon na mu jur ay fitna euh, ba ay bakkan yu baree bari rot ci benn rek ëpp na waxumala ak ñeen fukk wala juróom fukk euh, selon chiffres yi nga xam te ne joxe woon nañu ko professeur euh, Sénégal nekk réew moo xam ne day wax nañu ne modèle démocratique la ci lu yàgg yàgg sax bala ñuy ñëw sax ci 1963 lu ko jiitu Sénégal ak démocratie lan la ñu ci mën a jàpp. xam nga euh, Sénégal dafa yàgg nekk réewu démocratie hmm. euh, suñu président bi fi jóge woon mu di bu jëkk di Léopold Sédar Senghor hmm. ba mu ko daa wax ñun dañ ko daa reetaan ndaxte mu fi ñu koo gëm hmm. ba mu ko daa wax naan Sénégal <laughs> réewu démocratie la te naan démocratie yàgg na fii bay wax naan que moom référence moo doon euh, dix sept cent quatre vingt neuf dix sept cent quatre vingt neuf moo di euh, dix temps bi nga xam ne hmm. euh, ñi dëkkoon Saint-Louis du Sénégal ñu hmm. tuddee les habitants de Saint-Louis du Sénégal noonu leen leen doon woowee hmm. bi à la veille de la Révolution française de 1789 mu amoon les états généraux nga xam ne ñëpp ñu xam ni dañu nekkoon ci eh, ci l'empire français di war di indi seeni tawat muy cahier de doléance et de remontrances mu ci jamono yooya eh, waa Sénégal ak les habitants ñi dëkkoon Saint-Louis du Sénégal hmm. amoon ci ku tudd l'amiral moom moo yóbbu woon cahier de doléances et de remontrances de la population de Saint-Louis ci états généraux yooyu. te boobu jamono ñu ngi ñu noot. ah boobu temps di di di 1789. Hmm. <laughs> mu à de la grande révolution du 14 juillet 1789. Hmm. états généraux yooyu moom moo indi révolution française de 1782 xam nga loolu yàgg na. yàgg na lool kay. xam nga loolu Senghor bi mu koy wax. Mhm. ñun mosuñu juboo ak Senghor mosuñu d'accord ak Senghor. Mhm. bu daa wax dañ ko saa sax di eh, eh, reetaan mhm. waaye man samay eh, gëstu bi ma demee Angleterre. di liggéey ci fi ñu tuddee public record office bu di seen archive nationale hmm. bi may gëstu ci archive coloniale yi hmm. ma gis benn lettre boo hmm. <laughs> xam nga pétition rek baat bi boo ko déggee euh, dafa rëy euh, pétition bi xam nga ban année la euh, Euh, cinquante sept. yàgg donc moom moo jiitu. Mhm. ay at dix sept mhm. euh, ci pétition bi ñu def ci ay tour euh, ay Saint-Louisien ñu bind ko ki ko jëkk a signé mu di le maire de Saint-Louis. mu am ñaar fukk ak juróom benn ci ay dëkkandoo Saint-Louis mm-hmm. ñoom ñëpp ñu signé pétition bi mm-hmm. lu tax ndaxte anglais yi boobu temps ñoo ñëw xeex ak français yi mm-hmm. jël Saint-Louis toog fa daal di dàq ña fa dëkkoon ñëpp génne seeni kër. ndaxte ñoom seeni soldats yi dañoo bàyyi woon quatre cent soldats yi. Mhm. ñu waroon am fu leen dëkkalee. Mhm. ñu génne leen nag seeni kër daañu ñoom jël seeni kër. Mhm. noonu nag la population ba ci ñoom ñu dajalewoo daal di def seen pétition adressé ko à la couronne britannique maanaam buur Angleterre. di jàmbat li leen def. ñoom di jàmbat naan nañu delloo. Hmm. loolu mooy indi baatu pétition bi. waaw naan nañu delloo ñun suñuy suñuy kër. Hmm. nañu dédommager li ci ëpp solo moo di turu maire maire maire hmm. xam nga maire mooy ku ñu fal. waaw collectivité. donc loolu boo ko seetee. maire ba ab sénégalais la woon wala tubaab la woon. kii la ci ci ci ci ci métis la. métis la métisu ndar yi ndar yi la. Mm-hmm. xam nga tubaab bi fi ñëwee ànd ak ñun ñu ñuul ñi euh, mm. dafa am jaxasoo mu am seeni doom. Mm-hmm. ñoom itam nag ñu am taxawaay. te nag li ci ëpp solo. Mm. moo di dafa fekk taawu guerre la diggante France ak Angleterre. Mm. mu doon guerre bi ñu tuddee. la, la la guerre des sept ans guerre des sept ans bi mu doon mille sept cent euh, cinquante sept ba mille sept cent soixante trois xeex ba mu amee anglais yi gañe français yi ba ñuy gañee français yi nag ñu amoon ñoom euh, bind benn protocole benn acte de capitulation. Mm. ne ñun français yi ngi dem waaye ñi ni fii bàyyi hmm. bu leen anglais yi eh, sonal hmm. naan ci ñoom am na ay nit ñu ñuul hmm. ñeneen ñi ay métis lañu suñuy doom lañu ak yooyu bu leen bundu xatal ci lii wala ci laa moo doon acte de capitulation waaye ca jamono ba gis naa ci man lettre yoo xam ne yii ñoom Saint-Louisien ca jamono ñi ngi doon wax ne ñoom dañoo bëgg continuer xeex bi bëgguñu anglais yi ñëw noot leen ñam ñu manifester seen sentiment patriotique waaye comme Angleterre jëkk na woon France <laughs> noonu la France eh, di signé acte capitulation bi dem génn bàyyi fa métis ak ñu ñuul ña hmm. waaw donc li ci ëpp solo moo di sentiment patriotique bi amoon ci ñooñu. ci ñi suñu maamaati maamaati yooyu. nga xam ne ay métis yi ak ak ay ak i nit ñu ñuul. parce que am na ci ñoo xam ni seen tur yi sama kër dafa sori mais mën naa ko génne. waaw diw ak diw ak diw ak diw ak diw ak diw ak la. mi ngi sama kayit. Hmm. loolu bokk na ci li tax nga gëm ne euh, démocratie yàgg na ci Sénégal ni ko Senghor doon ah. waxee. waaw mais secret moom dafa di 789. man samay recherche bopp yóbbu ma ci 1757. Mhm. mu gën koo dëggal waaw moo gën koo dëggal gën koo feete ci kaw. Mhm. donc mu nekk loo xam ne lii lu am solo la. Mhm. boo jugee ci loolu. nga ñëw ci mille huit cent quarante huit. mille huit cent quarante huit. dafa nekk date bu am importance ci l'histoire du monde. Hmm. bi ñu defee quatre ah. communes yi. waaw bu exactement. Hmm. dafa am révolution moo amoon ci Europe yëpp fépp foo xamoon ne fii. Hmm. monarchie absolue moo fa amoon. nga xam ne buur dafay toog may buur may bummi. buy def ay buy bind wala muy wax dafa naan daf ma neex may def ne. noot ñëpp. waaw ñëpp dañu war a nekk ci suuf mu doon monarchie de droit divin hmm. nee na ñoom ñoo doon représenté yàlla sur terre monarchie absolue hmm. ba moo tax ku ci nekk ci ñoom bala ngay toog benn euh, pape mooy ñëw hmm. wala ki nga xam ne moo yore kàngaamu église bi mooy ñëw introniser la solal la sa mbaxane kurona la nga toog nekk quelqu'un xam ne da am pouvoir divin hmm. mille huit cent quarante mu am révolution ci heure yëpp ñu daal di monarchie absolue yëpp indi monarchie constitutionnelle hmm. na léegi ñi ñuy jiitee buñ dee nekk ay buur itam dafa war a am loo xam ne lii dafay téye seeni pouvoir du lu leen neex wax hmm. du lu leen neex def modèle boobu bu impor am importance mm-hmm. ci noonu la ñu les quatre communes ci Sénégal mm-hmm. ñoom ñu am seeni conseils municipaux di war di fal ay maire di war di fal ay conseils municipaux gën ko yaatal mu nekk un jeu politique ak démocratique mm-hmm. au niveau des quatre communes mu doon Saint-Louis di Gorée du Rufisque ak Dakar donc boo jëlee 1757 ñëw 1789 hmm. fàtt naa la sax wax représentant au niveau des assemblées constituantes hmm. ñi nga xam ne ñoo la constitution de la première république de France hmm. mu di 1791 ak 1792 toutes ces deux républiques de la France là suñuy maamaati maamaat yooyu nga xam ne ci ñun ñu weex yooyu la ñu ak métis amari seen représentant yu bokk ci ñu doon bind hmm. la constitution de la première de la République en France mooy assemblée constituante nga wàcc ñëw 1848 nga gis ñoom itam hmm. ñuy fal léegi seen i maire ak ay conseils municipaux hmm. nga gën a wàcc mu am en 1871 li ñu tuddee la commune de Paris mu nekk révolution bu gën a garaaw mhm. révolution mille huit cent quarante huit mhm. révolution boobu am ci France commune de Paris mhm. nga xam ne travailleurs yi seen bopp idée socialiste yi dugg na leen duggaay boo xam ne bii ñoom renversé nañu pouvoir bi jël commune de Paris administré ko def une république sociale boo xam ne bii ñoom dañu doon doxal en tant que classe ouvrière ñu yore la commune de Paris noonu yeneen dëkk yi àndandoo créé lu ñu la Sainte Alliance ñëw xeex ak ñoom daani les communards rey leen rey leen loolu moo tax commune de Paris échoué hmm. mais commune de Paris même boo demee ba léegi da ngay gis ay màndarga yoo xam ne dañ lay xamal ne fii la gars yi doon xeexi mbedd yi mbedd yi. Hmm. mbedd yi boo ba léegi ci rue de ci biir de France la koy woon. ñu hmm. am seen cimetière cimetière des communards de Paris. 1871 hmm. itam mu mu am lu mu uyoo fii ci Sénégal. mu ngi am soppeeku boo xam ne bii ñi suñu maamu yu weex yi métis yi fi nekkoon. te tubaab yi bi ñu del see ñoom itam ñoo yoroon assemblée bi ñoo yor représentant représentation yi léegi métis yi ñoom ñoo leen wëlbati ko daane leen durant Valentin moom nekkoon <laughs> léegi les députés de Saint-Louis wala représenter la communauté saint-louisienne au niveau du parlement français mu di date bu am importance itam mhm. ñoo wàcc wàcc wàcc wàcc wàcc wàcc ba ni Blaise Diagne faloo en 1914 mu indi ay loi yi indi citoyenneté française hmm. ñëpp ñu ngi xam ne amoon nañu citoyen nekkoon ci communes yi nga xam ne amuñu citoyenneté hmm. ñu ñu jox ñu citoyenneté française hmm. complète et de plein exercice Ngalandou Diouf moom itam bi mu ñëwee amul lu mu fi indi mu di droit syndical ak droit d'association loolu itam gën a renforcer loi le système et l'activité politique ak syndicale au niveau du Sénégal et des quatre communes bi 1947 euh, cinq sa 1945 amee. Lamine Gueye moom itam ñëw amul mu fi indi nag. Mm-hmm. maanaam moom moo indi citoyenneté dans. ce qu'on appelle l' moo fi yu jëlee li ñu tuddee indigénat. Mm-hmm. maanaam euh, boo. bokkul ci boo dëkkul ci quatre communes yi rek. boo nekkoon ci boo nekkoon ci yi doo citoyen. Mm-hmm. Lamine nag moo indi rek citoyenneté ñëpp. Mm-hmm. Sénégalais yi. loolu moom moo taxoon ñu am ñaari député. war a indi député première circonscription yi muy communes yi. ak député yi nga xam ne mooy député bandoolo yi ci noonu la Senghor taxawee ñu fal ko mu nekk député bandoolo yi. bien waaw. alors Senghor yooyu yëpp rek. Mhm. yooyu yëpp boo mhm. gisee jaar-jaar yooyu yëpp. waaw dafa lay won ne. Mhm. fii yàgg na fi di fi woote yàgg nañ di am activité associative. activité politique. ak di jongante. waaw. loolu nag moo wéy mhm. ba mille neuf cent cinquante six mhm. ak loi Gaston Defferre mhm. ñu créer ay assemblée euh, locale créer un exécutif local ba ñu indépendance maintenant war di fal président de la république war itam di yaatal war di fal ay député ak yeneen donc noonu la dëkk bi doxee. Hmm. noonu la dëkk bi doxee di doxee di doxee di doxee ba démocratie bi itam. Hmm. am ay benn tànk ay hmm. ñaari tànk <laughs> ba moo indi li fi am léegi nii. waaw alors ñu taxaw ci 1963 fàttali nga ñu la xew avant euh, jamono jooju ñu am indépendance euh, Senghor nekk président ñu yegg si ci 1963 war a def élection présidentielle couplé ko ak ay législative ni ma ko waxee ci ndorteel gi euh, parrainage ñëw foofu ay député waroon a parrainer candidat yi au moins fukki député bu ko defee ñu mën a bokk ci élection yi malheureusement opposition bi kenn parrainé wu ko parce que naturellement assemblée nationale Euh, presque parti euh, Senghor ak ñi ànd ak moom dong ñoo fa nekk loolu indi jafe-jafe euh, manifestation yi ci topp xam naa ne dinañ ci ñëw ay bakkan yu bari rot ci foofa nooy nattee tolluwaay démocratie ci ci ci Sénégal par rapport ak li mu weesu. ah non moom. Hmm. dafa nekk. loo xam ne li am na lu ko jiitu moo di mille neuf cent soixante muy mhm. élection municipale yi amoon mhm. mille neuf cent soixante ci la Senghor dissoudre parti africain de l'indépendance mu di PAI PAI waaw ci noonu la ñoom it Majhemout Diop mhm. ñoom Litiyan Baydi ñoom Seyni Niang suñu mag ñooñu di yenn saay sax suñuy papa ci ñun ñoom ñëpp la ñu gàddaay génn Sénégal hmm. ndaxte li am ba des moo di ne 1957 hmm. dafa am un changement politique hmm. bu am solo ci réew mi moo di fondation parti africain de l'indépendance moo di PAI mu di fondation itam PRA Sénégal. bu Ablaye Ly dem si yàlla. bu Ablaye Ly ñaari parti yooyu dañu nekkoon ay parti yu radicaux. ñoom ñaar ñépp dañuy wax bu dee para hmm. def na rassemblement africain ñoom dañu génne woon ci UPS hmm. bu Senghor ñoom dañu nekkoon ak ak ak Senghor bi euh, euh, référendum yi jig si ñoom dañu bëggoon indépendance su Sénégal hmm. alors que les Senghor ak ñoom waa BDS ñoom dañu d'accordoon pour continuer dans le cadre des lois françaises mu nekk un parti nag de rassemblement mm. xam dafa yaatu ba egg ay Niger dans toute l'Afrique de l'Ouest mm. le para parti du rassemblement africain mm-hmm. nga dégg itam PA yi moom itam mu di parti africain de l'indépendance mm. du parti sénégalais mais parti africain, maanaam dafa am ay barrage ci ay dëkk yu bari ba ci di ci gën a ëpp solo yitam sax hmm. ci ay jamono moo doon waa Mali amoon ci taxawaay bu leer leer a hmm. ndaxte jamono yooyu cadre politique yi ñu ngi xam ne ñoo jiite parti yi ñoom bokk fu ñu jànganoo ci université yi hmm. ci université tubaab yi ñoo bokk livre yi xamante nañu gis na nekk Afrique tubaab yi jaxase nañ ko eh, xaaj nañ fii ki féete ne fii kii féete ne fii kii féete ne fii néewal nañu doole eh, dëkk yi donc li leen ci mën a génn rek moo di ay rassemblement para pays yi nag hmm. nekk ay pàcc yoo xam ne yi dañu yaatu woon hmm. en même temps nag ñu am idéologie de gauche bu marqué mm-hmm. ñoom indépendance totale mm-hmm. ak socialisme mm-hmm. moo doon tax seen taxawaay te ñoom mu di pra comme mu di payal ci pays sax li gën a feeñ ñoom dañ doon utiliser li ñu mën a tuddee violence révolutionnaire niñ ko daan defee <laughs> violence moom foo ko dee violence révolutionnaire <laughs> waaw fitna fitna la rek. <laughs> moo di jël nguur gi. Hmm. ci xeex. Hmm. ndaxte gis nañ nekk que démocratie bi bi amoon du woon démocratie boo xam ne bii bu sotti la. Hmm. dafa tàmbali woon dellu ginnaaw bu bu mënoon a may nit ñi ñu ñëw euh, voté ñi war a gañe gañe mais dañu nekk ay parti yoo xam ne yii. violence révolutionnaire dañ ko doon théoriser mhm. ba moo tax sengoor mosul am ci ñoom confiance mhm. surtout nag waa PA yi ndax booba élection day am nga gis cent pour cent <laughs> ah waaw parce que eh, cent pour cent ci élection moom problème la te am yeneen candidat xam nga ah, xam nga élection cent pour cent nga jël ko mhm. mais dafa sax rafetul dafa sax rafetul hmm. te part yooyu nag dañu nekk des partis révolutionnaire te hmm. jamono yooya prise du pouvoir révolutionnaire dafa am modèle boo xam ne bii moo doon le modèle soviétique modèle soviétique wala modèle chinois mu nekk idéologie yoo xam ne dafa yaatu woon ci ci àddina bi yëpp ba tax na boo créer parti da ngay seet yow ci nan nga tënku est-ce que yow yaa ngi ci droite française mm. droite occidentale wala da nga nekk ci mouvement ouvrier mouvement socialiste ñoom para nag ak péage yi ñoom dañu nekkoon ay mouvement yoo xam ne yi révolutionnaire yoo xam ne yi xeex dañ ko jiitaloon ci mbir mi bataille électoral waaye itam bataille par la voie des armes hmm. waa bi ay incident amee dans les élections de mille neuf cent soixante la ñu dissout du PAI yi ñoom itam ñu dugg ci clandestinité bi nag léegi hmm. di ruuru di pex ut seeni pexe hmm. di seet naka la amee ay nit ak naka la ñuy jëlee nguur gi jël ko ci loxoy Senghor hmm. par la voie des armes hmm. waaw 1963 élection yi am na euh, Senghor gagné à cent pour cent hmm. législative yi tam mu gagné jël yëpp siège député yëpp waaw xeex yi fa amoon nag Euh, mu dee xeex yu métti àll du centenaire hmm. nee nañ ñen fa rey ëpp na cinquante personnes hmm. man sama bopp am na lu ma fekkee hmm. loo xam ne lii ñun ay xale lañu woon ñu jege faas fa ñu dëkkoon topp ñii yi ñi di daw di daw di daw di daw di daw ba ñëw ba ci rue vingt-deux bi ñu ñëw ci rue 22 fekk gars yi waa comité d'action yi di attaqué kër ku ñu Walda Walda c'était un ancien jaïste hmm. un plutôt un ancien laministe plutôt Lamine Gueye la àndaloon ah, Lamine la àndaloon hmm. moom dafa yor karabine tam di di mbiip mbiip di mbiip eh, di di di maanaam daal di di daal ci gaañ yi daal seen kaw hmm. waaw comité d'action yi ñëw nag di ko attaqué attaqué këram ak ay flèche di sànni ay ay ay cocktail molotov hmm. pour lakk këram. comité d'action yi waa Kër Senghor la woon. ah waa Kër Senghor la hmm. ak ak ak ak seen ak seen mbubb yu yu werte. Hmm. Ah, moom moom la ñu sol. couleur parti socialiste waaw yore seen benn oto T45 yow xam naa xamuloo T45. <laughs> déedéet xaw ma yooyu xeetu oto moom mooy oto yi daal dugg ci àll bi di di gerte gi. Hmm. di ko transporter T45. d'accord waaw T45 bi ci leen daal solo yore seen i seen i seen bomb di sànni ak seen i di fitt. te daawuñu ci làq dara. ah man làq déedéet. yow hmm. bu ñu xamee ne boo boo hmm. yow yow dee nga noona ba ñu ñëwee nag di attaqué balu fital tak gaa yi mujj daw ba ñu dawee nag bàyyi fa seen waaja tudd ëll fu fetal ba jóge ca Walda ah ci kër Walda waaw gaa yi daw ba ñu dawee mm. bàyyi fa nag ëll boo nga xam moo doon moo leen doon jiite mm. oto ba daw ëll ba daw topp ci jotu ko mujj mu tourné koñ bi gars yi dog tapp ko. mu dawa dawa dawa dawa dawa ba booru pobu sëñ Abdou bi. Hmm. ci gannaaw kër sëñ Abdou bi foofu dugg ci kër ya. Hmm. ña ko toppoon jot ko ñoo ko daane jaasi ji mu yore woon lañ ko reye hmm. mu mu tëdd ñun ba ñu isi fekk ñu muur ko ak benn sër dere ji tuur foofu yàpp. ci trottoir bi. loolu moom du li may nettali lu moom vivre la concrètement mm-hmm. ki nga xam ne ñun moo ñu jàngal alxuraan ak arab suñu ustaas doon Mamadou Niang ma xam mi ngi dundam léegi mm. ba léegi wala déet mu doon nitu xam-xam amoon xam-xam la Mamadou Niang mu doon jolof-jolof toll ca kaw mm-hmm. événement centenaire yi moom dafay dox ci télé bi ñu koy tiir ay bal muy dem di dem yoonam mm-hmm. bal yi di ko dal ci kaw muy dem tur la yore waaw hmm. ah, ba mu ñëwee. moom lu mu ca won wala booba moom kuy dox rek ñu dal sa kaw. déedéet moom xam nga nag ma yi moom ñëpp ciy jaxasoo. Hmm. <laughs> xam nga événement moom lu am ñëppay la hmm. ci waaw. waaye moom mi ngi doon wone ne moom moom am na lu mu àndal loo xam ne lii xam nga jamono yi nag mag ñi dañ doon ànd ak gàllaaj dañ doon ànd ak tul da nga leen tiim fital fital gu du dem wala nga tiim euh, tiire ñuy faxas bal du euh, bal du wala bu daree du ñëw nga nga nga nga jam paa du dugg mm-hmm. ndax dafa ne ko suñu culture mm-hmm. da ngay da ngay yore gàllaaj ba ñu ñuy demee ñoom première guerre mondiale mm-hmm. deuxième guerre mondiale bu tubaab bi sax da doon daw di ñëw di dagg seeni gàllaaj di tafu ci ñoom ak di daw ci ñoom di tafu ci ñoom naan laaxat jaakum <laughs> ndaxte yow amoon lu leen di protéger. Hmm. loolu dafa nekku suñu culture locale moo fi am nag ba léegi hmm. itam sur le plan politique. moom hmm. lu dugg ci politique te doo am see xar fa puuka. faaw nga am loo takk. faaw nga am loo ñaan. faaw nga am loo àndal. loolu dafa yàgg fii mu di suñu trait culturel sur le plan politique. ñun suñu ustaas boobu. Euh, Mamadou Niang lu tudd maa ngi gis kanam gi nii mag la. Hmm. Euh, xaw ma mënatul dund léegi sax ndaxte moom magoon la woon déjà. Hmm, hmm, ah, doon mag yooyu ku gentleman. comme temps yu il faisait deux mètres ci kaw. Ah ñuul kuk ba di xonq coy. nga xam ne kii joloñal tigi la. waaw donc li fi amoon moo di violence amoon na si. violence bi. parti au pouvoir amoon na ci responsabilité ndax ne di foqat ci ay élection hmm. ay cent pour cent hmm. loolu nit ñi mën ñu nangu eh fekk itam mouvement étudiant yi ñoom itam am nañu mouvement de contestation la hmm. ci biir mouvement révolutionnaire yi ñoom itam seeni wax moo di la voix euh, révolutionnaire de la prise du pouvoir maanaam jël ay armes jàmbarloo gars jël nguur gi hmm. loolu moo fi nekkoon hmm. moo tax dafa nekk un contexte global de violence hmm. d'un côté comme de l'autre waaye nag violence bi ñu jóge ci nguur gi moo ëppoon doole Senghor di eh, di jàpp di tëj ñi muy mu gëne leen réew mi mouvement démocratique bu leen di tas syndicat yi bu leen di tas ñi ñu leen di xañ seeni palace loolu la fi nit ñi nekk woon temps Senghor hmm. moo tax ñi itam doon ut seeni pexe pour génn ci loolu moo indi itam cent soixante huit hmm. xeex yi fi amoon ba mu am ñi ci dee au niveau de l'université hmm. alors muy euh, jamonoy fitna bu Sénégal euh, traversé mais ni ma ko waxee sànq itam euh, mu mel ni loolu syndrome bi ba tey mu ngi fii en tout cas ci ci ci ni ñuy yore réew mi peut-être ci ni ñuy organiser sax ay jongante ndax wax nga ko sànq ñépp ñoo war a yem ci dagan baatu askan wi ku war a bokk da nga war a bokk ku ku présenter en tout cas critères yi mais yenn saa yi critères yooyu dafay poser problème comme 2019 élection présidentielle bi ñu teg parrainage mu fàttali la xewoon 1963 loolu xëy na yàllaa ci def sutura mais ñañu écarté bu ñu fipp woon peut-être la xewoon du xew mais lu ko jege wala lu ko nuru mënoon naa am ci réew mi mu mel ni kon ba léegi professeur loolu bu doon wopp ñu ne wéraguñ ci mais wéraguñ ci génnaguñu ci hmm. ndaxte parrainage bi dafa dafa dafa dafa dafa mel lu jóge ci asamaan rek naaw na ci suuf. Hmm. jël c'était c'était brutal. Hmm, inattendu kenn xaaru ko très inattendu mm. ba mu ñëwee jaaxal ni nit ñi ñi ci amul kenn ku ci ànd daanaka sur le plan politique. déjà ba muy jàll ah, ah, assemblée rek problème la woon. Ah, dañ koy voté rek problème la woon. bi. Mm. ñoom ñoo ci tiré woon te ñoom seen lay moo doon ne dafa bari ay candidature bu ñu candidature yi danoon toog ba duñu mën a organiser élection. Mm. mu di itam argument boo xam ne bi moo ñu ko dàq. Mhm. bu dee dëgg dëgg rek. waaw ndax élection législative yi jiitu. quarante sept liste la ñu amoon. waaw waaw loolu tam problème la. nga war a dem e-, élection municipale yoo xam ne yii xale yi ci koñ bi dañuy ànd def seen groupement déggoo seen biir ah ñëw néewal doole la maire néewal doole chef de quartier bi jël pouvoir bi qu'est-ce qu'ils vont faire du pouvoir hmm. mais loolu problème la hmm. loolu problème la de sorte que il fallait que nécessairement hmm. ñu trouver une solution à ce problème là ndaxte parti yu bari dafa nekk loo xam ne lii problème la ci réew parti yu xam ne amuñu idéologie parti yoo xam ne yii amul leader boo xam ne yi mën nga ne kii am na leadership hmm. du ci yàgg du sur le plan professionnel waaye tëb tëb tëb def politique bu nekk business hmm. ndaxte boo boo faloo man am loo def ba riche. Hmm. di dal naa la soxlawul yow <laughs> ngay jàngi jàng bu sori. Mm-hmm. soxla ngay liggéey liggéeyu kii ma ci politique bi utal lii utal laa. Mm-hmm. te loolu. moo tax léegi liggéey lañ ko def. mais liggéey lañ ko def am na ñoo xam ne mosuñu liggéey. Eh politique def mu nekk seen liggéey. Mm-hmm. politique lañ def mu nekk seen liggéey. da gis nit ki mu dugg ci politique bi mosul am dara toog toog romb ak benn huit huit. Mm. nga gis ko muy tabax benn immeuble nga gis ko muy def lii def lii lii lii lii lii lii amee loolu yorewul réew mhm. loolu moo tax politique bi dañ ko parasité def mu nekk business mhm. lii xew ci quartier gis nañ ko xam nañ ko ñun ñu dëkk da gis ay xale yoo xam ne yii du seenam njàng mhm. du seen activité professionnelle du seen vécu social li ñu mën a nekk moo di ay ASC peut-être ci lañ doon nekk li ñu mënoon nekk moo di ay association yu ndaw ndawaan yoo xam ne yii ci lañ doon nekk toog toog toog toog toog toog toog toog gis ne que maire bi daal euh, dàqu ne ak moom ñaañ nañ ko financement def na lii def na laa la ñu ànd xeex nga moom daane ko ñëw jël conseil municipal bi teg suñu maire mm-hmm. loolu dafa yore réew mm-hmm. il faut moraliser mm-hmm. mais nag comment moraliser toute la question est là boo toogee bay moraliser man na indi nga parrainage bi ñu indi lii waxuñu ne bon na à cent pour cent parce que c'est un parrainage citoyen mhm. bu fekkee dafa nekk parrainage uniquement des élus mhm. doon le pose problème mmh. mais parrainage citoyen dañ ne la que à l'échelle nationale war nga am <laughs> un nombre d'électeurs mmh. waaw yow nag yaay war a dem uti nombre d'électeurs mais gars yi bu ñu mënoon a ànd ñoom hmm. am ay liste unitaire dana hmm. mën a am nombre d'électeur bi hmm. muy benn ñaar ñi nga xam ne ñoo yore logiciel bi nga xam ne mooy nangu ak di rejeté bu fekkoon ne am nañ ñi ñi amoon nañ ci accès waaw boobu nag mooy problème bi wala mu leer nañ ni léeg léeg la waaye boo amee rejet. Mm. ñu defal la autre motif te autre moom lu nekk nga ci bi mm-hmm. autre bi. yow wàññi nan la waaye xamul li la wàññee lan la. Mm-hmm. te mooy ñu la possibilité nga dellu si waat. Mm-hmm. loolu moo tax donc li nga xamoon ne moo na nekk lu juste ça devient maintenant injuste. bien mu nekk loo xam ne war nañ ko corriger. te nag itam CEDEAO nee na leen dina leen seen parrainage bi parce que. li mu éliminer li mu indi ci ay ay ay ay ak li mu mën a jur ëllëg ci ay jafeñ jafeñ hmm. kenn xamu ko bari na effectivement donc tey jii ñi nga xam ne ñoo toog ci nguur gi hmm. te mu wóor na ñoom dañ fi jógee yàlla nag moo xam kañ lañ fi jógee hmm. waaw bu ñu yàq réew mi dem bu ñu yàq réew mi dem nañu parfaire démocratie gis nga démocratie dañ koy parfaire mhm. parfaire moo di ne amul benn système démocratique boo xam ni dana absolu dana dana nekk normal à cent pour cent parfait dans cent pour cent. faaw ñu koy gën a yanjal saa ne. dañ koy dañ koy yanjal. Mm. da ngay dindi lii dugal lii dindi lii dugal lii. Mm-hmm. mettre ko à jour. Mm. en fonction ci li nga xam ne mooy problème nit ñi bëgg-bëggu nit ñi. Mm. ak tolluwaayu jamono sax ak taw ak tolluwaayu jamono surtout. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu boo ko defee. danga dal xelu candidat yi dana tax kii wote xam kan la war a woteel buy wotee dana xam ne man kii danaa ko woteel ndaxte kii mooma doy mën na ab sax ne yow mi fi nekk eh, boo defee ni mbir mi ni mu demee mu woteel la waaye du la wooteel parce que doyuloo ko ndax gis na nga def injustice boo xam ne bi daf lay contre kon nag moom li fi am ba des moo di ne bu ñu yàq réew mi bu ñu nañu toog waxtaan yi nga xam ne ne bu duut nañ ci baaraam mu di classe politique bi d'accord ñu ci ne war na demee nii nañ ko jubanti mm-hmm. lii nga xam ne li nga xam ne c'est un acquis. moo mm-hmm. di parrainage citoyen mais nañ ko mm-hmm. parfaire. Mm-hmm. li ko mën a rendre lisible ak crédible nañ ko def. ñu nekk candidat mën a postuler normalement. comme ça yàlla mën am ci réew mi. waaw loolu lan la ci xalaat. alors euh, démocratie nag euh, ak peut-être sax ni ñuy voté am na quand ay avancé ndax 1992 euh, bi ñu amee code Kéba Mbaye réglé na yenn problème yu bëri euh, voté am isoloir encre indélébile ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñëw na euh, système électoral bi aussi gis nañu ne mbir yu bëri soppeeku na ci ñuy wax tey ay fichier yu fiable wala lu fiableul def nañu en tout cas ay audit yoo xam ni officiellement wane na ne fichier bi fiable na. lañ daan jooytu daal ci élection démb jooytootuñ ko peut-être tey eh, ñàkk wóolonte ba léegi la ñu nemmeeku ci ci ci ci biir eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo sekk eh, làngu politique bi mais yow boo doon tey jàngat ak xëy na natt tolluwaayu mbir yooyu ma tudd léegi ci Sénégal fi ñu toll deux mille vingt wala deux mille vingt deux lan ngay jàpp ni moom la ñu dese peut-être lu ñu war a joyanti ngir dal mun a mun a am. en tout cas euh, système électoral bi li ñu mën a constater moo di il est fiable maanaam li ñu mën tuddee vote multiple wàññeeku na. waaw wàññeeku na ndaxte ñun <laughs> dañ gis ci ay jamono ci taw parti socialiste de. Mhm. ay vote multiple dafa daa bari lool. Ah, waaw vote fii dem vote fële. <laughs> da vote fii vote fii. def d'abord ab isoloir. wala mhm. encre indélébile. Mhm. ah ñi fi nekkoon am seen doole lu leen neex def. Mhm. te dara ñu leen fekk nag. bourrage d'urne itam dégg nañ ne daan na. bourrage d'urne. mais mais gis nañ li <laughs> li xewoon mille neuf cent quatre-vingt-huit. ma Mahmoud na man li ma jaaxal moo di école de la libération man fa laa sama jabar fa la wootee sama doom fa la wootee waaye man zéro laa fa am. <laughs> xanaa moom voteel na boppam. jabaram ak sax buñ ko leerul moom moom li voteel na boppam loolu leer na ko. xanaa moo wootee na sama bopp. Mhm. donc loolu am na ci ay acquis. Mhm. waaye mais li des. moo di léegi jusqu'à présent le pouvoir. il mhm. s'est arrivé au pouvoir de Macky Sall à deux reprises. à chaque élection dafay retoucher la carte électorale hmm. mais loolu dafa jaaduwul déplacer ay électeurs jëlee leen fii yóbbu fii jëlee leen fii yóbbu leen fii carte électeurs yi jaxasoo. doo hmm. xam yow fan nga jëlee say carte ah. ñenn ñi dañuy gerte sax dem jëli seen carte. Hmm. am na ci ñu dul voté sax. mais du ñu voté parce que dañuy gerte du ñu dem jëli seen carte. wala dañuy wër seen carte wër a wër a wër a wër a wër ba sonn du ñu gis seen carte. Mm-hmm. wala toog toog toog toog na arrêté nañu établir carte d'identité te boo amul carte d'identité doo mën a wote. Mm-hmm. wala boo amee sa carte d'identité ñu bind ci carte d'identité non non non électeur. non waaw loolu lan la. Mm-hmm. non votant. bari nañu mu daal. loolu loolu du taaru démocratie bi. waaw ah, kon nag euh, euh, monsieur Macky waaw mais na góorgóorlu mais lijjanti yooyu. Hmm. yooyu mën a ànd ak ak taru démocratie. ah bu bëggee natt boppam. Hmm. tigi tigi tigi xam lan la jar ci peuple sénégalais bi. Hmm. na fexe ba système bi nekk un système ba xam ne bii mucc ayib. irréprochable. irréprochable. bu irréprochable ku mu daane. ñu xamee kii daan na. muy jël bu leer. mu di jël bu leer mhm. <laughs> waaye bu amul ah mm. retouché carte électorale yow say nit ñu leen defal ay carte d'identité ñeneen ñii ñu jot seen carte d'identité mën a wote ñii jot ñu seen carte d'identité mën nañu wote ñii ñu génne mm. leen ci fichier électoral bi ñi ñu clôturer la dat euh, boo di ne mën na leen permettre ñu dem inscrire sur les listes mm. mais loolu pour lan dans un jeu boo xam ne bi dana c'est un hmm, démocratique. dana un jeu démocratique ñëpp mën nañu bokk. Hmm. te dana système démocratique démocratie représentative la. Hmm. bu doon démocratie directe sax ñu mën a wax. mais démocratie représentative la. donc ku nekk war na jël këyitam ñëw sa boppam. nga xam man kii la am confiance. na ma représenté ma ne leen mais yooyu tant que amul rek tant que amul mbir mi du dox tant que amul jàmm du am ci réew kon nag moom war na góorgóorlu gën a taxawaat ci loolu lu am solo la buy dox lay doxe loolu loolu moom moo ko mën a setal ba ëllëg ñu ne kii liggéey na fi léegi léegi lii ci démocratie mm-hmm. ñu ngi góorgóorlu nag sur le plan économique social mm-hmm. loolu ku ko waxul euh, comment dire euh, war nañu wax loolu mu nekk loo xam ne lu am la mm-hmm. deuxième mandat euh, président Macky Sall bi li fi am yépp mais loolu yu ñu mën a teg baaraam la. Hmm. mu dee ay mbir yu am solo ba bër ci Demba njaay université Makka Amadou Makhtar Mbow bi ñuy ubbi à Diamniadio. Hmm. barki Demba Ndiaye daara yi maître alquran yi ñu dajalee. Hmm. Euh, euh, euh, comment dire centre Abdou Diouf bu jam ñaajo réunir leen déglu leen mais am na solo yeneen programme yi fi nekk yëpp mu di ay Prodac ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais am na solo. warta nangu leneen di ko yàq. mboolul dangu moom yeneen di ko yàq. Mm, surtout wàllu démocratie. mënoon yaa ngi liggéey pour le développement économique social ba pare nag di xajamal démocratie bi mm. boo ko defee daan tax ba ëllëg. waxuma sax ëllëg dana tax ma yooyu li koy def nit ñu ko gis. waaw day suul sa yu baax yu bare bëri. te nag am na ay mesures yu bari mu jël dans la cadre des des des lois Covid là soutien yi mu def aux entreprises du privé lu solo la. Hmm. soutien yi mu def au niveau des ménages lu am solo la. prolonger ko avec les bourses familiales et cetera et lu ci nekk rek mën nañu ko critiquer. Hmm. lu ci nekk mën nañu ko améliorer. Hmm. mais dafa indi dafa dellu si lu ñu tuddee état providence mm-hmm. xam nga état providence. Mm-hmm. gars yi dañ koo rayoon yàgg na. Mm-hmm. état providence moo de état bi dafay toog di redistribuer les ressources. système capitaliste dafa toogal ba ne loolu mënatul am c' était l' état du dix neuvième siècle. léegi état libéral moom moo am. c' est avec le marché les gens se débrouillent ku nekk ne euh, seet mën a demee. mais Covid bi dafa tax ba ñëpp dellu si waat gannaaw. Mhm. même pays européens yi pays américains yi euh, ay Asie ku nekk def un retour vers l'état providentiel maanaam l'état reprend sa fonction redistributive des ressources. Mhm. ak sa fonction de régulation du système économique et social. Mhm. te foofu boo gisee Macky Sall def na ci ay avancées yu am important. Hmm. man défendre Macky Sall dama ne def na fi lii. bien loolu lu ñëpp gis la. waaw lu ñëpp gis la. Hmm. mais ko loolu li ko nar a nëbb ba tax ñu mën ko fàtte moo di takk takkul système démocratique bi mu nekk nii. Hmm. waaw alors lu am solo la professeur euh, xam naa ne dañuy wax rek euh, ci li xew tey fitna gi am tam mhm. ci biir politique yi ndax gis nañu lu xew assemblée mënuñu ko bañ a tudd euh, xeex xëy na sax ba ba mu jéggi dayo lool lool lool fu ne ci àdduna bi tey ñuy waxtaanee loolu biir politique yi itam naka lañ ci war a xëy na doxe wala waxee ba mu bañ a am luy dellu ginnaaw ndax fitna yu ni mel yàgg nañ koo gis xëy na sax du du ci degré bi mais quand jàpp nañu ne fi ñu toll tey ci àddina tànk ginnaaw waratuñu aussi bien ci wàllu politique ak ci wàllu démocratie donc diggante woy politique yi euh, professeur ban taxawaay moo ci war dëgg-dëgg ba mu gën a rafet. xam nga dama na la sàng léegi politique day day gars yi nañu ko def business. waaw bu rëy sax. business bi moo di da dugg ci politique ut place mën a am sa richesse. Mhm. ut nguur pour mën a nguuru. loolu moo tax xëccoo bi gën a métti. Mhm. ñun baa ñuy politique ñun hmm. suñu génération hmm. ak suñu papa yi nga xam ñoo ñu jiitu mu di ñu Ablaye Ly hmm. ñu Amadou Mokhtar Mbow ak yow ñoom jublu uti ci woon dara lu di soppi réew mi am indépendance souveraineté nationale pleine et entière loolu ñun dañu àndoon àndoon ak idéologie suñuy yooyu <laughs> ak suñuy maamaat yi depuis ay Lamine Arfan Senghor de Gabriel Darboussier ñoom ñëpp dañu amoon idéologie am lu ñu nar am patriotisme nangu di mën a joxe seen bakkan pour réew mi mën a jubbantiku dox waaye fii moom bëy la la sol bu moo rafet wala am tagal bu rafet moom moo rafet wala tagal bu rafet ñëw mën toog di taasu wala di xool ak di xeex mais loolu dafa rafetul te nag li am nii mais man gusuma mu dellu gannaaw de. di gën a jëm de. déet waay. ah ragal naa ko de parce que dafa am équilibre des forces. Hmm. doole yi dañoo yem. ndaxte malgré le parrainage. Hmm. malgré le filtrage. Hmm. malgré les moyens immenses et colossaux de l'État. malgré la prépondérance du parti et les moyens yu investis que dans la dans les campagnes municipales les campagnes euh, législatives ñu toog ba dans les municip les conseils municipaux gën a am importance ñu dans ce pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale fexe ba am cette sorte d'égalité là taxaw léegi mbagg ak hmm. mais loolu le pouvoir a perdu beaucoup de de terrain et il n'est pas prêt de le, il n'est pas prêt il n'est pas en position de reconquérir ce terrain-là il n'est pas en posture de reconquérir le terrain perdu amul foo xam ne fii mën na ci jàpp xëy les bourses sociales les mesures sociales dana am impact ci ñenn ñi mais le vote citoyen il est là les populations sont conscientes mm-hmm. li Major Diouf suñu kabaan boobu mm-hmm. xam ne ñoo bokkoon syndicat mu nekkoon suñu secrétaire général mm-hmm. syndicat SUDES mu nekkoon suñu suñu ami et camarade li mu doon wax kuñ ci jox xaaj fabal lekk boo demee ci isolé la xamal fi ngay wootee. Mm-hmm. nit ñi yeewu nañu léegi. citoyen Sénégal bi xam na moom fa ñu woote xam na ci ki mu amal confiance kon nag tollu lañ foo xam ne fii dafa am équilibre des forces lañu toll. Mm-hmm. te nag la tendance est ascendante du côté de l'opposition. Mm. c'est une tendance ascendante maanaam moom mooy yéeg ñii di wàcc boo gisee li fi xew ci biir Benno Bokk Yaakaar ay kàngaam di jël di wax ñii di génn ne bokkutuñu di contester ñenn ñi naan Macky bul tuddati troisième mandat préparer le dossiers tegal demal sa yoon mais loolu mun la ànd ak reprendre la situation en main reprendre l'initiative en main na nag mën na góorgóorlu de te itam nag hmm. ku yàlla tuddul ne sa nguur jeex na nguur gi jeexul moom hmm. Hmm. yàlla nag mooy joxe mooy nangu waaye nag li ñuy gis moo di ne hmm. fin de règne mooy annoncé wu hmm. fin de règne mooy annoncé te li suñu maam yi wax nguur kenn du ko ñedd loolu xam nga loolu moo doon Ablaye Wade hmm. ba mu toogee Ablaye Wade amul lu ko nit ñi moyul comme confiance amul lu ko nit ñi defulul ànd ak moom ci lépp bëgg ko waaye ba ñu toogee ba wëluti ko gannaaw mais lañ ko wàccee malgré que amoon na l'aval du conseil constitutionnel pour se représenter. Mm-hmm. kon nag kii fi nekk nii mu di Macky Sall mm-hmm. man je ne suis pas pour je ne suis pas contre. Mm-hmm. yàlla def ñu bañ am taxawaayu wax li xalaat. en tant qu'observateur. en tant que citoyen et patriote, soucieux de l'avenir du pays et de la paix sociale. Mm-hmm. damne dara jaru fii dem di jàmbarloo di xulal di xeex ñu ay nit. Mm-hmm. pour garder le pouvoir ou bien pour conquérir le pouvoir. Mm-hmm. dara jaru fii di dem ñuy rey ay nit ci ay manifestations. pour garder le pouvoir ou bien pour conquérir le pouvoir li ñu soxla mooy une démocratie apaisée mhm. xam ne moom nguuru yàlla rek moo dul jeex bien li fi des mooy préparer koo xam ne kii dana ko fi mën a toogal mhm. liggéeyal ko continuer ko bilan mhm. ndaxte am na bilan ah waaw am na bilan am na bilan kenn werantewu ko jërëjëf professeur Mansour Aw. <laughs> jërëjëf. amoon nañu mbégte en tout cas dalal la ci waxtaan wi fàttaliku démb mais aussi artu peut-être ci tey ak ëllëg ndax démb loolu mooy njariñam ñu lay gërëm bu baax a baax di feddaliwaat suñu mbégte ci di sekk ak yow waxtaan saa su nekk. jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon professeur eh, Mansour eh, Aw eh, historien jàngalekat mm-hmm. Mm-hmm. amul woon il est toujours moom la ñu doon dalal ci dem ak Tay bi waaw loo ci bëgg a yokk ah, waaw historien anthropologue historien anthropologue <laughs> waaw ndaxte da dama la envoyé benn këyit mm-hmm. tudde ko précis encyclopédique mm. mu mu ak samay livre yi may bind te ci livre yi nag mu am ci benn boo xam bii mhm. dafa ànd ak précis encyclopédie bi boobu mhm. précis boobu nag am benn rubrique mhm. ñu tuddee ko l'alternance au Sénégal waaw loolu moo tax ma man ci sori ci question yi maa ngi am na ah, solo jërëjëf professeur Mansour Aw kon mbokk yi mun ngeen teewluwaat émission bi ci réew mi TV officiel suñu chaîne ci YouTube ñuy gërëm Diaw Diallo mi fare woon ci jàppandal gi di leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen Fatou Thiam Ngom moo nekkoon ci kaddu gi yendu leen ak jàmm